Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum euh, téléspectateur Salam Vision. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi maa ngi ñaanal waa adduna bi yëpp rawatina waa diaspora bi nga xam ne toujours ñu ngi seetaan Salam Vision maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di dugg ci hôpitaux yi di ziar malade ma dem ci prison yi di ñaanal détenu yi fa nekk yàlla génn leen ci jàmm maa ngi ñaanal kilifa aada yi di ñaanal la kilifa diine yi di jël nuyoo bi nag ak ñaan bi di ko teg ci sama wasila muy sëñ sëñ Muntaxa Bachir yàlla fi yàgg te wér ak bépp booleem euh, kilifa diine tey nag dañu ñëwaat ci suñu émission salaam santé bu ñu ko baaxoo di ko def àllarba bu jot ci heure bii maa ngi nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp tey nag ma dalal fi sa benn journaliste euh, Sakho mm-hmm. ñu fas yéene waxtaan tey ci affaire vaccin yi. Mm-hmm. ndaxte balaa may dugg sax ci waxtaan bi dina jox kàddu bi ngay nuyoo saako damay commencé waat rek fa ma daan commencé. Mm-hmm. di wax ni Sénégal dafa kii moytu leen bu baax. Mm-hmm. te ngeen xam ne feebar corona mi ci dëkk bi. Mm-hmm. dafa gën a garaaw démb rek maa ngi dégg ñu naan démb huit dese am na. dix huit dix kon nag ngeen farlu bu baax. ut leen i jël seen mesure barrière mm-hmm. da leen utiliser masque yi di utiliser gel yi mm-hmm. ku amul gel tamit nga am saabu sa kër soo demee ba ñëw nga raxasu ba set mm-hmm. te xam ni feebar baa ngi fi te feebar bi deuxième vague bi dafa gën a garaw ndax da mi li muy rey ci doomu aadama njaay fi nekk nii jéggi na dayoo loolu daal laa doon ubbee di wax euh, monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi lay nuyu di la di rafetlu sa liggéey wax dëgg yàlla yaa ci bay sawaar bu baax a baax a baax a baax waa tey nag dañ doon waxtaanee affaire vaccin yi balaa may dugg ci waxtaan bi nag damay jox euh, doyen Sakho bu nuyoo. doyen Sakho kàddu gaal yi. jërëjëf Adja Khady Diouf la gërëm la sant di gërëm euh, tous les téléspectateurs de Salam Vision euh, Khady macha seen émission Salam Santé di gërëm képp koo xam ne su sur le plan national et international Khady. jërëjëf euh, Sakho Sakho dama bëgg na ñu dugg ci waxtaan bi mm-hmm. tey jii dañuy waxtaanee euh, euh, vaccination yi ndaxte tey président Macky Sall mm-hmm. ak gouvernement indi nañu deux cent mille doses mm-hmm. deux cent mille doses yi nag bi ñu ko indee jëkkee nañ ko ci mag ñi ñu am cinquante ans ci soixante ans léegi yow nan nga lan nga gisee noonu xat euh, yi pose ne question bu am solo euh, di gërëm d' abord ministre de la santé et de l' action sociale Abdoulaye Diouf Sarr def liggéey bu mucc ayib Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr bi Covid duggee Sénégal ba léegi depuis un an xat yi mu ngi def liggéey bu am solo avec les médecins et ses collaborateurs. ma ne euh, li Sénégal yi doon lam-laamee mooy deux cent mille vaccins yi nga xam doses yi. si jàmm salaam xat yi. ki ko njëkk a réceptionné mooy le président Sall aéroport Blaise Diagne ma ne loolu gulet euh, Sénégal boo xoolee xadi sur les cinquante quatre pays africains mhm. ñu ñoo nekk le septième pays boo xam ni jot nañu les deux cent mille doses mhm. loolu lañ ko war a tiitaroo te suñu ndam la mhm. euh, président nee na amul politique il s'empare ba amul benn politique si de si vaccin yi lépp pour rek Sénégal ñu mën a xeex Covid bi xadi et je pense que bu ñu toppee euh, les directives de l'OMS organisation mondiale de la santé. Mm-hmm. Sénégal dina génn si euh, le coronavirus. de jërëjëf euh, doyen démb bi ñu indee vaccin yi. ba gis nañu mbooloo mu mm-hmm. mais dama xool ni man ci sama gis-gis. Mm-hmm. de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne dañ koy delloo njukkal di ko remercier moom moo jëkk a euh, pour wan askan wi ni leen lii ñàkk yi ñaq yu baax la. nan nga gisee definu Abdoulaye Diouf Sarr. fi mu nekkee ci dëkk bi ak ci santé bi. Ablaye Diouf Sarr nee naa nee la xaj man de franchement en tant que journaliste bi ma interpellé euh, bravo Ablaye Diouf Sarr loolay wax. Mhm. liggéeyam rafet na te dafa dem ba jeex dégg na lu nekk nag. ñun Sénégal yi xam nga Sénégal yi dafa nekk euh, dafa Sénégal dafa nekk xaj réew moo xam ni euh, dafa métti xaj yi à diriger. nga nekk ministre nga nekk président chaque jour tu as des mais mi ngi xar tànk tubayam mi ngi xeex guddeeg bëccëg Abdoulaye Diouf Sarr a fait toutes les régions mi ngi conscientiser nit ñi moom daal liggéeyam macha allah il a accompli sa mission. ministre nag nee na na ko devant na ko il a donné le bon exemple. si teewaay ay ambassadeur di ay jëwriñ moo njëkk ñax ñaxtu pour yeneen Sénégal yi kii amul benn lënt-lënt. moom moo wane l'exemple que dafa jot ay directives euh, du président Sall. directive partout dans moom monde le Sénégal est sollicité moo tax Abdoulaye Diouf Sarr war na Sénégal yi que ñax bi amul benn loo xam ni war na ko xalaat di jëm si ñaw euh, ñun xale boo xoolee bu ñu nekkee xale amoon na jamono ay ñaxtu jamono jamono yi dañ daan ñaxtu amoon na jamono jamono pes jamono choléra jamono paludisme ñun dañ daan ñaxtu man yàgg naa ñaxtu c'est pas la première fois may ñaxtu mhm. man en tant que journaliste man ne je suis prêt pour dem ñaxtu wane le bon exemple à jërëjëf euh, doyen Sakho démb tamit dama gis ci biir mbooloo mi. waaw suñu benn koo xam ne ci Sénégal kenn dootul na table ay mbiram. Mhm. muy ku baax koo xam ni royukaay la ci Sénégal. muy suñu papa Mansour Mbaye mhm. démb ba ma gisee ñu ñàkk ko mhm. wax dëgg sama yaram dafa daw démb moom it mi ngi béy ci Sénégal nan nga gisee taxawaay ci biir Sénégal une bonne question El Hadj Mansour Mbaye di ko ñaanal yàlla gudd fan wér gu yaram Hadj Mansour Mbaye bibliothèque la Hadj Mansour Mbaye euh, mi ngi mel ni comme Amadou Hampâté Bâ un vieillard qui meurt en Afrique est une est une bibliothèque kenn ñaanu yàlla El Hadj Mansour mais mais ñaan ñaan royukaay présence xarit presque plus de quatre-vingts ans quatre-vingt-dix ans am na ko ñu sant yàlla parce que El Hadj Babacar sëñ Babacar si moo ko ñaanal c'est El Euh, si famille euh, boobu la bokk. tey boo gisee présence am Khady en tant que mag day wane le bon exemple. day wane ko Sénégal Khady ñu ñoo bokk ndee ak baay Hadj Mansour bu def bu ko neexoon mu toog këram mais dafa ñëw en en tant que mag wan ni ko Sénégal yi euh, dose vaccin bi dose bu jaar yoon la am ñoo xam ne gëmuñ ko Khady mais ñoom ñoo xam seen diggante seen borom la. mais li ñu fi indi pour njëriñu Sénégal yëpp la. di gërëm aussi Hadj Mansour Mbaye ak kilifa diine yi xam ne fa lañ fa teewal démb amoon na ay jëriñ. Mhm. ñooñu aussi xale yi war nañu la bon exemple. dëgg la dëgg démb ci mbooloo mi eh, militaire yi sax ña fa woon. waaw euh, suñu papa Mansour Mbaye. Mhm. li may wax rek mhm. moom référence la. moom nit la koo xam ni dafa tëddee jaaxaanaay. lu baax lay wax lu rafet lay wax. fekkee na lu bari te fekkee na lu bari. li ma gën a neex ci moom mooy parti ba mu nekkoon bi PS boo waxee. mu ne moom toujours PS lay nekk. c'est ça loolu rek. Mhm. moom Papa Mansour Mbaye rek. Mhm. dafa war Sénégal. Mhm. ñu war koy delloo jukkal fu ñu toll ba pare di war war di roy ci moom. muy état bi dañoo war ci war a roy ci moom. muy kilifa diine yi. ñépp dañu war a roy ci Papa Mansour bay ñu koy ñaanal nag Mbaye ma jaag gudd fan. amiin sa dund gi am na solo ci Sénégal. ndaxte yaay suñu lépp. mu yàlla na la yàlla may gudd fan ak wér léegi euh, Sakho mm-hmm. beneen question bi ma lay posé mooy mm-hmm. noo gisee Sénégal jël 10 pour cent mm-hmm. séddale ko Gambie ak euh, Guinée Bissau waaw ko question am solo xar boo xoolee Guinée Bissau Sénégal ñu bokk ndey bay euh, suñuy voisin lañu tey boo doon dem tey Guinée Bissau doo def trois ans egg nga Gambie la même chose le ministre de santé wax na ko nee na pour cent yi dañ koy jël jox ko seen jox ko suñu mbokku Gambie ak Guinée Bissau sax ñooñu ay dëkk yu néew loolu lañu xaj. Mhm. mais nag am na ñoo xam sax dèjà ñu ngi kaas loolu pourquoi dégg naa seen médias yi pourquoi ñu leen ko jox loolu leen ko jox ay doomu aadama lañu ñoo bokk mhm. loolu amul benn euh, benn jafe-jafe amul benn sikk-sikk boo xam ni euh, Sénégal jël 10 pour cent jox ko suñu mbokku Bissau Guinée ak suñu mbokku Guinée euh, waa Gambie loolu day rataxal diplomatie day rataxal diggante Sénégal ak Gambie loolu xaj yi amul benn jafe-jafe. jërëjëf Sakho loolu amul jafe-jafe dëgg la parce que Sénégal ak Gambie ak Guinée Bissau ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tey jii da ngay toog toon bu la neexee léegi-léegi nga jël oto dem Gambie bu la neexee nga jël sa oto aussi dem Guinée Bissau kon ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te yaakaar naa ne nag lu laal Sénégal laal na mhm. Gambie mhm. lu laal senegal laal na Guinée Bissau lu laal seen dëkk yooyu itam ñëw na Sénégal ndaxte frontières yi ubbi ubbeeku na mhm. amuñu sens interdit si diggante Sénégal ak Gambie ak ak euh, Guinée Bissau amuñu benn sens interdit fu leen fu nekk waaye bi ngi fay jóge di dem nit ñaa ngi fay jëndi Sénégal Sénégal. yaa ngi jël fii marchandise dem di fanaani Gambie. Hmm. loolu pour man Abdoulaye Diouf Sarr hmm. loolu mu def. wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko hmm. ñaanal. man toujours fu ma toll damay gërëm ab laa Sarr ndax gis naa ni mu sonnee. liggéey na Abdoulaye Diouf Sarr dafa sonn dafa liggéey. ministre de la santé la bu baax boo xam ne xam na ne moo yor sant bi. dafa tëddee moom tam njaaxaanaay jàppale askan wi yëpp. donc euh, doyen bi ci des. mooy xam naa question bi may mujjee ak yow rek. mooy dañ ne fii ba fin mars. dina am six cent. non six millions. Hmm. sénégalais yi ñu ñu vacciné ñu war a ñàkk waaw ma lay laaj ci loolu. loolu xar yi bu ñu ko defee dafay baax dégg naa li njiitu réew mi ne leen incha allah am na yenn yu la d'ici fin mars mën na nekk trois millions ba quatre ba cinq à six mhm. la ñu bu nekk gis sa mhm. am ñoo xam ni ñu naan la sànq gëm nañu fexe ñoo xam ne. gëmuñu dose bi ñii gën nañ ko boo xoolee si yenn euh, yenn micro trottoir yenn médias yi nga xam ne Sénégalais yi pare nañ pour ñaxtu man li ma leen mën a yi dañ dem ñaxtu ji xale yi ñaxtu yàgg na am Sénégal c'est pas du bii yàgg nañ ko fekkee di war tous les Sénégalais ñu ànd ak yar ànd ak teggin xale euh, bu ñu nee soixante ans cinquante ans la ñuy commencé après dañ koy wasaare si biir réew mi Sénégalais gis seen bopp les régions département ma ne xale yi di xaar rek Sénégal def nay jéego yi am solo chinois yi suñu partenaire lañu xadi France suñuy partenaire ñooy bu ñuy def tey ay dose de médicament pour ñu ñaxtu xadi mhm. bëgg rek pour le coronavirus xadi du fi jàmm ak salaam jërëjëf euh, doyen la li ngay tàggoo waaw xadi la gërëm la euh, euh, les téléspectateurs de Salam Vision mhm. ñuy suivre Salam Santé tous les mercredis que tey moo doon émission bu am solo les doses de vaccin egsi na si jàmm ak salaam mhm. ma ni Sénégal nañ bokk ndey bokk bàyyi xeex le coronavirus feebar bi xar yi le 2 mars la fi am un an ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi avec ses vaccins de te bu ñu ko defee rek incha allah jàmm la ñëw Sénégal. jërëjëf euh, Doyen Sakho waaw li moo doon seen émission sa Santé maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp li may tëjee rek mooy mhm. euh, corona baa ci dëkk bi. Mhm. li ma leen di ñaan rek sama mbokk euh, jullit yi mhm. sama mbokk chrétien yi yéen ñëpp na ngeen jëf na ngeen jël seen matuwaay di utiliser ay masque te ngeen di jël seeni gel di di utiliser te ngeen di raxasoo saabu. Hmm. te xam ne corona bi mi ngi fi te mi ngi rey tey jii bu Macky Sall ak gouvernement hmm. indee vaccin yi. pour Sénégal yëpp la. c'est que sénégalais tamit ma leen di yee encore une fois. Hmm. li nga xam ni dañu ni feebar bi ci mag ñi la gën a aay ñu yor diabète. ñu yore tension. ñu yore cardiaque. feebar yooyu bu la ci bu la fekkee nga am ko. bu la dalee moom yàlla rek moo ci des da ngay da ngay génn àdduna. Mhm. moo tax ñu jëkkee ci mag ñi. mais bu leen yaakaar ni. Mhm. vaccin yi dañ koo def pour politique wala dara. Ah. vaccin yi pour sénégalais yépp la. Mhm. képp koo xam ne yaa ngi Sénégal. même bu dul Sénégal xam nga ne li jël vaccin. Ah. yóbbu ko Gambie. Ah. yóbbu ko Guinée Bissau. pare nañu pour vacciner sénégalais yi. ma leen di ñaaxaat encore une fois. ngir yàlla ak yonte bi xool leen ci papa Mansour Mbaye mi nga xam ne mm. Mm. dafa joxe bon exemple te ngeen xool ci Abdoulaye Diouf Sarr ministre mm. de la santé bi nga xam ne li muy def pour pour Sénégal la li muy def pour àdduna la daf ko gëm mm-hmm. bëgg ko fonk ko jël santé bi def ci lu am solo lu àdduna yëpp di di di rafetlu man de dama koy rafetlu ñu dañ koy rafetlu ñu ngaa Salam Vision Abdoulaye Diouf Sarr sa liggéey am na solo baax na wax dëgg yàlla ñun ci sa ginnaaw di jàppale tey ba suba toujours lu ñu mën a wax dinañ ko wax askan bi pour ñaax leen ma ni leen nag ngeen dem vacciné wu képp ku ñu indil euh, piqûre bi dina ko defar ñaq yi ah. daf leen ko hmm. ndax ñun bi ñuy tollu kat bi ñu nekk xale amoon na nañu ñaq pistolet te booba genre mbas bi boo fi amoon ñu ñuy ñu wooñu choléra amoon na fi am naa fu amoon na fi pes ah. amoon na fi lépp dañu daan jël ñu defal vaccin yi ñun ah. ñëpp suñu loxo yi am na ko kon nag vaccin vaccin yi du lu bon hmm. luy ñuy aar la hmm. lu ñuy may euh, wér la te yaakaar naa ne nag nit ki war na tal lu nekk hmm. ba mu des toog gis loo xam ne mën na laa fekk nga bàyyi ko fi ëllëg mu lay indi loraange boo xam ne dinga ñàkk ay ordonnance ñaar fukki junni ay scanner yooyu te jamono metti na maa ngi leen di ñaaxaat sama mbokk yi di leen ñaaxaat ñépp di leen wax di leen képp ku dégg vaccin foo ko dégg ci sa quartier ak ci sa village na dem def ko. Mm-hmm. vaccin yi jàmm la rek. ak mm-hmm. salaam. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu. di leen ziar. di leen ñaanal di ñaanal ñëpp waa Salam Vision. ñi di ñaanal tamit ñi nga xam ne ñu ci liggéey bu am solo bi. te kenn tegu leen gën sonn nañu maa ngi ñaax aussi kilifa diine yi ñu waxtaan ak seen. taalibe yi waaw. ndax ñoom bu ñu waxee rek. seen kàddu buy buy jub rek. ñu jóg di defee vaccin bi maa ngi ñëpp. di gërëm ñëpp di ziar ñëpp di leen jox rendez-vous nag. àllarba bii di ñëw incha allah fii ci Salam Vision émission bu am solo bi di Salam Santé. nekk leen ci jaam jër ngeen jëf.